laaj boo xam ne bari na ñu mu jaaxal conflit boo xam ne c'est des millénaires bu la neexee nga wax loolu en tout cas au moins depuis euh, mille neuf cent quarante-huit ba léegi ñu ngi ci conflit boobu mooy li nga xam ne moo gën a feeñ ci ginnaaw après guerre mondiale mais bien avant Israël musul jóg ci xeex lan ma waral loolu d'abord suuf bi ñuy xëccoo suufas kan la Israël ñooy ñan Palestine ku ne xam ne foofu lañ mës a dëkk ci Palestine amuñu beneen réew Palestine pour nga dox ba gis palestinien ci beneen réew sax bariwul. day jafe dafay jafe. nga dox ci xa suuf gis bi ñu la ñu France nga fekk fay ay palestinien wala nga dem Amérique. ñu réew lañ fa ñu raar lañ fay doon duñ fa bare. Mhm. doo ñëw Afrique ba ñu ne kii Palestine la dëkk lu néew la lu raar raar la bariwul. Mhm. ñoom xamuñu feneen suuf boobu lañ mës a dëkk seen depuis des génération di des millénaires foofu lañ mës a mais Israël moom lan moo tax mu dëkk foofu ni foofu suufam la xam nga Israël mooy l'histoire de la vie mhm. Israël mooy histoire u àddina mhm. Israël mooy histoire u prophétie mhm. maanaam yonent yi seen histoire yëpp dafa jaar ci biir Israël xanaa kon yonent yëpp ci ñoom lañ bokk seen jiir lañ bokk waaw bu la neexee nga ni quatre-vingt pour cent ci yonent yëpp ci waa bànni Israël lañ bokk loolu tamit yàlla moo leen ko defal wax dëgg yàlla ndax kañ la ban Israël existé Israël kañ la am waxuma suuf si mais nit ki. ci boppam waaw parce que Israël du suuf nit la. Mhm. nit ki kañ la am. lan moo tax ñu ne bërëb bii mooy suñ suuf xam nga Israël mu ngi jóge ci baatu Isaaqa dina wax ñu ne Isaaqa mooy Israël. Mhm. am ñu ne déedéet Yanqub ba tey dinañ ko wax Israël. bu mhm. dee histoire bi ñi la ñuy Isaaqa. Israël la. ñu nuy yanqub moom mooy israil bu yàlla naan bànni israil njabootuk yanqub la am ñu ne déedéet boo demee ci ci nasaraan yi ak ci ci ci le nouveau et l'ancien testament ñoom ils considèrent isaqa moom mooy ki nga xam ni mooy njabootu mooy bàyyi waa bànni israil ndax yont yàlla ibrahim bi ko yàlla maye ismaïl ak ishaqa isaqa moo jur yanqub kon exclurel ibrahim du israélien ndax yàlla àtt na ko ba noppi Israa Ibrahim yonent yàlla Ibrahim leen moom du yëxóor du nasaraan du nasaraan te nasaraan yi pël nga fa mën a boole yëxóot yi du yëxóot du nasaraan mooy mooy mooy mooy dëkk boobu ci Palestine wala boog ci ci Israël wala boog ci Kanaan parce que fan mooy Kanaan problème la donc Isaaq mi ngi dëkkoon Kanaan ba ñu nee bànni Israël njabootuk Israël mooy njabootuk Isaaq wala boog njabootu Yanqub en mooy bi gën a wér parce que Isaac xëy na yëg ci kaw mais Yanqub ci lañ commencé vraiment ni ñii ñooy njabootu Israël ñii ñooy njabootu. Yanqub di leen commencé di leen identifier. di leen identifier merci. ok ñu mën ni ñu ngi nii kon njabootu Yanqub la kon léegi ndax bu fekkee ne xëy na ñoom dañoo am suuf kon xëy na fi yooyu Yanqub dëkkoon mooy seen suuf. Mhm. mais Yanqub bi lay wax ni la Kanaan la dëkkoon mais boo nee fan mooy Kanaan. Mhm. ci jamono boobu ñoom suñu doon wax Kanaan. Mhm. Kanaan dafa boole woon Irak Palestine Jordanie sud de Liban ak Israël loolu yëpp dafa nekkoon Canaan muy ardul Ijaas boobu. Mhm. donc fan lañ ci situé wu woon ci jamono boobu mun loo ko xam. di mhm. benn partie ci Irak la ndax Irak lañ dëkkoon parce que yonent yàlla Ibrahim Irak la gënoon nekk. Mhm. donte ne jordanien la d'origine Jordanie. syrien moom mooy mooy d'origine am. maamu Ibrahim cosaanu Ibrahim Syrie. la Syrie. Ibrahim du du juif du nasaraan syrien la. parce que ay baayam ay maamam ñu ngi jóge woon Syrie benn colonie syrien ñoo ñëwoon ci benn village bu ndaw bu ñuy wax Our au Mésopotamie mhm. Ibrahima foofu la juddoo Our benn village bu ndaw la bu nekkoon ci tefes gi ci wetu dex gi foofu ñuy wax au Mésopotamie entre deux eaux mhm. donc yonte yàlla Ibrahima foofu la cosaanoo yonte yàlla Ibrahima moom nag moo am Ismaïl ak Isaaq Isaaq jur Yanqub mhm. kon donc Yanqub léegi moom fu mu dëkkoon ndax Isa la nekkoon wala Palestine la nekkoon wala Israël la nekkoon wala Syrie la nekkoon wala Jordan la nekkoon wala Iran la nekkoon ça kon ñu ko identifier waaye li am te wéeru daal mooy bi yàlla defee yonti yàlla Yuusuf gane àddina bokk ci bànni Israël mu nekk premier lot de personnes bi nga xam ne ñoom ñooy bànni Israël ndax yonti yàlla Yanqub yàlla mayoon na ko fukki doom ak benn ñëpp am ay soxna am ay doom ba seeni doom am ay doom mbooloo moom ñooy tudd bànni Israël ñooñu nag bi ci yàlla Yuusuf demee Égypte wér na ni yonent yàlla Yuusuf Égypte lan loolu kenn wérantu ko bi ñu ko jàppee jaay ak Égypte lañ ko jaay bi mu demee Égypte nekk fa ba yàlla def mu nekk fa premier ministre yor pouvoir bu mag bi mu yoree récupéré waat famille am ni bàyyam damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw Égypte tey am naa fi nguur am naa fi pouvoir am naa fi doole ma mettre leen à l'aise d'accord famille ba yëpp ñëw fekk si ko Égypte gedd gental seen suuf fa ñu dëkkoon dañ koo gental gental nañ kenn newatu fa kenn nekkatu fa donc il faut kon nga loolu tamit leer gental nañu suuf boobu ñoom ñëpp ànd dem fële nga xamante ne si mooy mooy mooy mooy Égypte di Afrique ñu ñëw Afrique bi ñu ñëwee foofu yàlla yont yàlla Yuusuf daf tabaxal leen fa ay ay ay ay appartement ay cité yoo xam ne ñoom ñoo fa dëkk ñu dëkk ci ay cité yu rafet nekk à l'aise ñu am ñu leen di jox ñuy dund amuñu benn souci ñu benn problème nekk ay bourgeois nekk ay patron ban Israël bi ñu demee ba yonent yàlla Yuusuf génn àddina ba yeneen génération ñëw beneen génération ñëw après plusieurs centaines d' années ci la ñëw nag benn na boo xam ne c'est un raciste buggul waa bànn Israël mu nangu privilège yi ñu amoon yépp ñu génn ci cité yooyu ñu dem créer ay bidonville dëkk fa ñoom waa bànn Israël maanaam ñu dem dëkki léegi ca banlieue boobu wala bokk ca euh, euh, euh, foo xam ne daal ay bidonville daal ñu créé en tout cas ca ghetto génn nañu génn nañu ville bi nañ ville bi génn nañ ci résidence de luxe yi mhm. dem dëkk ci ay bidonville mhm. parce que yorutuñu dara amatuñ benn moyen tàmmuñu liggéey parce que daawuñu liggéey dañu aju woon rek bi fa Yusuf di nekk ñu leen di defal seen lépp léegi nag xamuñu fu ñuy def ñuy di taxan mat di jaay ñi di liggéey ay mbindaan yooyu la ñuy def ñu nekk ñu suufee jamono di dox ba yàlla benn njabarkat wax Firawna ni ko xale bi nar a daaneel sa nguur ci waa bànn Israël yi lay juddoo ci la euh, euh, euh, Firawna commencé massacre yooyu nga xam ne def na ko ba rey ci ñoom am na ñu wax ne rey na ci fukki junni liir ak ñaar mhm. ci waa bànni Israël dem na ba mujj gi ñoom mënutu ñoom ay mbindaat parce que kenn juddootul daanaka ci ñoom ku judd firaaw na rey ba yàlla def li ci xew-xew ci yont yàlla Moussa gane àddina xam ngeen histoire bi ni mu demee bi mu ganee àddina moom yont yàlla Moussa yàlla def mu jaar fi mu jaar ak firaaw na parce que loolu bu ñu ci bëggee dugg dafay jël temps bi te loolu dinañ ci egg ci biir histoire yi mhm. mu jaar fi mu jaar ak firaaw na ci ba yàlla ni ko génnal nga ànd ak bànni Israël nga dem ci seen suuf cosaanu maam. fa ngeen fa ngeen fa ngeen fa ngeen jóge woon jóge woon. léegi nag. ah kon Moussa kon Moussa bi muy xar géej gi dafa daf boobu mooy bi mu jógee. Euh, Égypte war delluwaat seen cosaan. war delluwaat seen cosaan. ah moo waral xaar mu xaar géej gi. moo mu xaar géej gi pour mën a traverser. mer rouge bi pour mën a dem ci beneen partie ba la nga xamante ni si moo dugg ci côté euh, fi nga xamante ni mooy. Asie asi bi. Asie dafay jógee Afrique dem Asie. d' accord dafay jóge Afrique dem Asie. Mhm. mais na nga bàyyi xel nii tamit ñooñu fu juddoo ñooñu wa ñoo xam bani Israël xamuñu fu Israël nekk seen téeméeru maam seen maam yu maam yi maam yi maam yi maam yi maam moo fa jóge woon ñoo koy xam ñoom dañ koy dégg rek d'accord ñu naan la ñun ngay dëkkuñu fii ñu ñoo ko dëkk Kanaan lañ dëkk ñun fii dañu dëkkuñu fii mi mel ni ñu nekk ay gànjol gànjol ci suñuy maam jóge woon gànjol comme ni sama maam alaaji rawan daan wax ni eh, sama daan daan bu yëkkatee doomu gerte ni gerte moom moo tasaare samay mbokk ndax boo demee Saalum fekk fa gànjol gànjol boo demee Waalo fekk fa gànjol gànjol bu ñëwee Bawol kon loolu moo ko waral topp suuf su neex exactement xam nga tey jii noonu la mel bu amoon euh, ay euh, ay Guinéen yu jóge Guinée ñëw Sénégal nekk fi ba am fi ay doom mhm. seen doom yooyu am ay doom seen sët yooyu am ay sët seen sëtaat yooyu amaat ay sët ñu dem Guinée xamuñu Guinée xamuñu Guinée xamuñu Guinée Sénégal la ñuy xam waaw ah, dañu dëkk ñu fii ñun Guinée lañ jógee loolu rek lañ ci xam mhm. bu ñu nee Guinée fan la ñu leen boor bi la penku gi la wala ci sowwu gi la d'accord da ngay jaar nii da ngay jéggi dex gi foofu mooy boo jaadee boo jéggee euh, dexu Gàmbi gi jaar nii jaar na dem Guinée loolu rek lañ ci xam d'accord léegi nag tey nag ñu war a ñibbi ci suuf boobu nga xam ne xamuñu ko parce que fii Firawna sonal na leen mhm. da leen di massacrer fas na yéen rey leen ba ñu jeex tàkk mhm. ñu ne kon nañu daw génn fii dellu ci suñu suufu cosaanu maam. d'accord dina compliqué na. ok ah, mais bi ñu génnee foofu bàkkaar yi ñu defaat ci dem jëlaat nag wa def ko xërëm di ko jaamu te Moussa Samirin jaamu la woon. d'accord mhm. tax yàlla alagaat léet gëlëmal léet ñu eere quarante ans quarante ans yooyu boo ko defoon par millénaire dafay nekk quatre mille parce que booba ak léegi ça fait quatre mille ans. d'accord ñeenti junni at la. ñeenti junni at yoo xam ni amuñu suuf dañuy wër ci àddina bi dañuy wëndeelu rek moo tax baatin Israël foo dem fekk fa israélien ci kaw suuf si boo demee les juifs de France les juifs d'Allemagne les juifs d'États-Unis les juifs de les juifs de en Afrique partout les falachas nga xam mooy les juifs noirs ñoo tas ci àddina bi ñoo tas ci àddina bi boobu bu ñu dox bu mu yàgg rek ñenn dañuy jëkk rek toog benn dëkk mais comme yàlla daf leen defal wërsëg daf leen a barkeelal seen wërsëg daf leen a favoriser bokk mhm. pour ne pas dire barkeelal mhm. daf leen tax ba lu ñu wundu rek lu ñu upp rek mu dox réew mu ñu nekk dañuy dem ba économie réew ma ñoo koy yore ñoom waa bànn Israël dafay dem ba réew mu ñu yekk rek dafay dem ba économie réew ma daanaka ñoom ñoo koy téye hmm. ci sax commerce day dox seen mbir dafay dox parce que loolu leen yàlla defal la ba pare hmm. moo bu yàlla di wax ne man yàlla maa favoriser maa tànn maa jox waa bànni Israël li ma leen jox hmm. nit ñi léeg-léeg da ngay dégg ñu lay wax naan la non ca jamono booba mais en réalité du boobu ci jamono yëpp la dëgg la moo tax ñu naan yaa bani Israël fàttaliku leen mhm. xéew li nga xam ne man defal naa leen ko man yàlla mhm. maa leen tànn ci biir xeet yépp favoriser leen favoriser leen rek mhm. nag ko déggee gaa yi bu ñu koy firi dañ naan ca jamono booba noo jaru ko ci jamono yëpp la wax dëgg yàlla xam nga nit ki moom ak loo ko noonu noonu lu mu bon bon bon bu mu teree li mu baax ne li mu am nga nangul ko nga nangul ko ni li moom yàlla ko koy baaxee wallaahi nangul ko ni lii kat dëgg dëgg da koo am mais moom lu ko yàlla xëyrée la uskuro nixmati latti mhm. fàttali ko leen xéewal li leen yàlla defal ba mhm. mu ni leen favoriser ci kaw àddina bi loolu ñàkkuñu ko ba faaw moo tax toujours fu ñu nekk ci àddina bi ak lu ñu leen tas-tas dañuy développé waat mhm. Israël réew su ndaw la man nga ne amuñu benn ressource lu dul gaz bu ñuy wax peut-être naan am nañ ko depuis as as bon xawma gaz mais amuñu benn ressource ils ne font que neuf millions de personnes lañu neuf millions de personnes kese lañu Israël bariwuñu sax bariwuñu tuuti lañu 9 millions de personnes kese lañ mais seen budget ak budget Sénégal Sénégal 15 millions de personnes lañ budget Sénégal mi ngi egg defe naa ne ay 7000 milliards xam quelque chose comme ça boo ko jëloon en en dollars dafay nekk ay 9 milliards de dollars. Mhm. mais bu budget idéal milliards de dollars la. te huit te neuf millions de personnes lañ neuf milliards de dollars mooy mooy mooy mooy ñoom de dollars. mais lan moo waral euh, lu waral euh, distance euh, kii boobu. richesse boobu waaw. parce que économie mondiale bi yëpp ñoom ñoo ko contrôler à travers les spiritualités à travers la franc-maçonnerie à travers contrôle yi ñu contrôler àddina bi ci diine lañ ko def wax ma diine islam. Mhm. et ci seen diine ci mystique la. ci créer ay kuréel loolu dafa yàgg. parce que ban Israël ñu ngi jëlee seen xam-xam bi yonent yàlla Souleymane nekk Palestine parce que yonent yàlla Souleymane tamit ci waa ban la bokk. Mhm. mi ngi dëkkoon nag Palestine nag xam nga tamit. Palestine la dëkkoon Palestine la dëkkoon moo tabax Jérusalem te moo tabax Jérusalem Baytul Muqaddas. Ah, yonent yàlla Suleymaan donc il faut euh, du tere du firiwul ni ñoom dañoo moom suuf soosu moomuñu fi mais yàgg nañ fa quand il faut le reconnaître. Mhm. il ñu nangu ni tamit bàyyi bàyyi Israël yàgg nañ fa. parce que yonent yàlla Suleymaan fa la nekkoon mais yonent yàlla Suleymaan ñoom waa bànni Israël ba ñu dañ faa fekk ay yeneen i nit muy waa nekkoon ay naar yoo xam seen source seen d'origine seen origine ay ay Syrie la ak ay Jordanie d'accord mais nekkuñu ay ay juif ban Israël noonu lañu ñëwee bi bi yonent yàlla Souleymane ñëwee yonent yàlla Daouda yonent yàlla Souleymane ñooñu ñëpp seen i lañu yonent yàlla Daouda mi ngi woon Palestine. Mhm. soriwul woon foofu. yonent yàlla Souleymane mi ngi woon foofu. Mhm. parce que yonent yëpp ci ñoom la ñu bi yonent yàlla Souleymane ñëwee. ci lañ jëlee xam-xam yi ñu am muy xam-xamu mystique bi ñu yore ndax yonent yëpp ci ñoom lañu ñu wàcc téere yëpp ci ñoom la jaar daanaka donc am nañu xam-xam xam ñu téere am nañu connaissance mystique am nañ connaissance su xam-xamu technologie te boolu bokkut ak li nga xam ne jëlee nañ ko ci jinne yi nga xam ne ñoo àndoon ak Souleymane ndax jinne boobu nga xam ne moo jëloon jaaro Souleymane ñu koy wax zajjaar moo jëloon jaaro bi Souleymane daan takk ba tax mu am pouvoir bi yonent yàlla Souleymane amoon xam nga yonent yàlla Souleymane musoo dégg ñun la jibril dikk ni yonent yàlla Souleymane. waaw nga koo dégg. musoo ko dégg ah, musoo dégg ñun la Souleymane nee na dafa gént. Mhm. Souleymane xikma bi mu doon demee lim xam-xam bi mu doon demee jaaro lay takk. kon bi ci jaaro bi la ci jaaro bi la nekkoon bu ko takkee lépp lay xam. loolu la yàlla di wax ni du ma wax ak aji dee maa kaana li basharin mhm. an yukallimahu llahu ila mhm. waxyan mooy jaaro bi aw min wara xijaab mooy kii gént aw yusra rasul mooy jibril mu dikk ni la sa borom neen dëgg la donc ñetti buntu yooyu la yàlla di waxee kon loolu kon kon maa ngi doog a dégg kon li tax ñu wax xaatimu Souleymane. effectivement. waaw ah, mooy eh, juróom-ñaari buntam yooyu nga xam ni eh, gars yi dañ ci def yu yéeme ci ci xaatimu Souleymane boobu macha allah. bu la neexee da nga naan yonent ci àddina Souleymane moo ci gën a mystique Souleymane dafa mystique woon. ah bon xam moo ko peroon pouvoir bi tax mu mën a contrôler ay jinne ki nit ak rab ak gaynde mhm. am armée rab armée gaynde yi taxaw armée ñay yi armée fas yi armée jaan yi lépp di dox ci ndigalam lépp di dox ci ndigalam armée jinne yi taxaw armée nit ñi soog a taxaw ndax bu jinne waxee mu xam ko bu picc sabee mu xam li mu wax bu mbaam ŋaaxee mu xam li mu wax bu fas ŋaxalee Souleymane xam na li mu wax xorondoom bi ci biir paxam bu waxee Souleymane dégg na ko xam na li mu wax. allahu akbar. yàlla mën yàlla mën a may. wallaahi. lépp nag mu ngi nekk ci benn jaaro bu muy takk. jaaro bi bu du dugg wanag bu daan dugg ci wanag moom Souleymane daf koy dénk benn jigéen bu ñuy wax jaraadata. jaraadata moo koy téye. Mhm. bu Souleymane génnee mu jox ko ko benn bis mu def ko benn jinne ñëw jël bu tudd zajjaar ñëw jël melokaanu Souleymane teg teg ñëw taxaw ni soxna si jox ma jaaro bi soxna si yëkkati jaaro bi jox ko mu takk ko moom zajjaar dem toog ci turonu Souleymane Souleymane génn ni soxna si andi jaaro bi mu ko Souleymane ñëw ba ma jox ko. <laughs> te xam na ni moom fi mu ne nii amatul benn pouvoir léegi maa maa ngi moom a yem xamatul dara bu fa demee di wax sax bu deful naa ko ñu rey ko ñu daal di koy bu daal di génn teggee noonu topp àll bi dox dem ba ci dex toog fa ku ñii xëcc ñii ñii xëcc jën bu ñëwee mu xëccale leen bu ñu paree ñu may ko ñetti jën mu jaay benn saraxe benn lekk benn bi loolu féete ko toog jàpp njàmburam zajjaar dem toog ci suróolu Suleymaan di atte lu Suleymaan baaxaloon mu bonal lu Suleymaan bonaloon mu baaxal lu xaraamoon mu daganal mhm. lu daganoon mu xaraamal mhm. ba nit ñi Suleymaan mii dafa soppeeku Suleymaan léegi ab yéefar Suleymaan léegi dafa weddi yàlla parce que yi muy def nii Suleymaan léegi dafa weddi yàlla mhm. am benn jinne bu wax Xaasid ibnu Balqiya ni ko góor gi kii toog ci turam bi du Souleymane de mu ni ko lan mu ni ko kii benn jinn la bu tudd Zajaar góor gi dem jël seen pëtaan tëggee seen téere mu ngi mel ni rek nga woo gaa yi ñu ñëw rek teg kaamil ci seen kanam commencé yaasin wal quraanil hakiim ne ko la di jàng ci kanamam mhm. jinne ji mënut la toog fi mu toog ci sées bi muy ñuut ñuuti góor gi dafa bari xam-xam mhm. muy muy muy góor góor nga xam ne mooy xaasif ibnu balqiya ndeysaan jinne ji ni moom kii na fër dem jël jaaro bi dem ba ci digg géej gi mu sànni ko fa dem toog dem yoonam Souleymane toog di xëccale gaa yi ñu may ko ñetti jël mu jaay benn saraxe benn xotti benn biir bi pour togg ko gis ci jaaro mu jël jaaro ba takk lépp ñëwaat ci moom hmm. mu dellu siwaat ci turanam leen ñu ni ko zajaar la mu jàpp zajaar moom léegi nag jinne jooju loolu histoire boobu moom la yàlla di defendre Souleymane naan wa tabaxu maa tatlu shayaatinu ala mm-hmm. mulki mm-hmm. waaye wa maa kafara Souleymane walaakinna shayaatina kafaru wallaahi ñoom la mm-hmm. yuallimuna naas sihra gis nga de yuallimuna naas sihra ñoom ñoo xamoon gars yi njabar ok waaw unzila ala al-malakayni baabila haaruuta wa maaruut parce que ñoom ñoo amoon connaissance yooyu mystique boobu léegi nag jinne yi ñu doon àndal yi ñu doon ak nit ñi ñu doon àndal ci xam ne gëmuñu yi nga xam ne gëmuñu woon Souleymane ñoo créé après di waxtaan ci seen biir di échanger am ay connaissances mystiques. d'accord moo tax maçon yi am ay connaissances mystiques franc-maçon yi. Mm-hmm. ci à part de base boobu mooy base bi nga xam ne moo jur toute la franc-maçonnerie. kon kon kon euh, euh, lii di franc-maçon kon ci ci ci giiru Israël ci ci la ci la génne ci la génne ñoom la ci depuis ci période yoonu si yàlla Souleymane lañ commencé organiser wu. kon kon kon franc-maçon yàgg na yàgg na. moo mag ñëpp moo ak sax aadama. ah bon loolu dinañ ci ñëw beneen jamono. la hawla wala quwwata loolu dinañ loolu dinañ bi ñu yore jaan yi fi doon dund avant Adama te màkk maami Iblis ñoo ñoo ko yoroon moo tax mu jox leen ay turi maamam moom Iblis ay turi maamam Isis. Isis Osis. Osiris. Mhm. Mhm. ñu ngi koy tuddee ay dieux c' est des dieux dieux antiques des dieux des étoiles dañu naan le premier pharaon d' Égypte fii Osiris c' est un dieu venu des étoiles maanaam le premier pharaon d' Osiris la. benn yàlla lu jógoon ci biddew bi en réalité jinne yooyu dëkk ñu woon dans les espaces sur terre lañ ko mais dañu amoon capacité voyager dans l' espace di dellu mhm. moo tax gars yi dañu gisee dañu gis ne ñi dañ jàpp ne ñi ay extraterrestre lañ mais fii lañ dëkkoon sur la planète terre bien que ne amoon na yeneen jinne yu dëkkul ci kaw suuf mooy jinne yi nga xamante ni si lu jiitu aadama lu jiitu jant bi tàkk ñi ngi dëkk ci yeneen planète mhm. lu jiitu suñu jant tàkk mooy Oris ak Osiris moom la moom la ñuy wax Oris boobu mooy Aris accord mooy Aris bi aadama tuddee woon doomam doom jëdee mhm. moom la moom la wax Oris Isis mooy Liisa mooy yaayu Iblis. ibnu Liisa Iblisu ibnu Liisa doomu Liisa mhm. moom la ñuy wax Isis moom nga gis ñu def ko noonu ci dollar. léegi moom nag bi ci fa jógee ñoom ñoo ñu organisé wu ñoom la ñu tuddee moom nga gis yàlla di wax ni wa kazalika jaxalnaa li kulli nabiyin abdun shayatin ins wal jinn yuuxi baaduhum mhm. ila baadin mhm. zuxru fal xawlul xuróon maanaam ñoom ñooy waxtaani seen biir mooy mooy nag kuréel goog nga xam ne ay nit ak ko composé mooy sayaatunul ins wala sayaatunul jinn. sayaatunul jinn ak ñoo associé wu. Mhm. ñoom formé kuréel yooyu ñooñu nag ci lañ intégré nit ñu baree di lañ ci dugal. ba créé loolu ba tax ba mujj gi dëkk yëpp dans le monde bu ñu fa demee dañuy minorité la ñu doon ñu néew lañu ñu tuuti lañu mais dañuy riche te dañuy fexe ba gëm gëmloo ni la boo àndeek ñoom mën nañ la fal parce que am nañ ay moyens ñu investi seen xaalis defal na ay forme mystique defal na ay ñaan sangat la maanaam nga dem falu nekk buur. Mhm. ñu am ci yow contrôle mën a contrôler réew moom. Mhm. boo gisee ñoo ne Israël a contrôlé àddina bi loolu rek a tax parce que Israël juróom-benni nit lañu mais terewul parce que fexe nañu bëri réew mu nekk ña koy yor ñoom ñoo lay contrôlé ñoo yor alal ji ñooy fal ñooy folli. boo demee Amérique ñoom la lobby juif ya fa nekk boo demee France lobby juif ya fa nekk boo demee Allemagne lobby juif ya ñooy fal ñooy folli. d'accord richesse bi ñoo ko yor économie bi ñoo ko yor loolu yàlla moo leen ko defal kenn mënu ci dara. Mhm. il faut le reconnaître tout simplement. léegi nag ban Israël noonu la ñu jëwee ni dañuy ñibbi di wëraat suuf boobu gisuñu ko. ñuy taxawaalu di taxawaalu di errer pendant quarante ans. ñu tas ba ñu yonti yàlla musaa génne àddina ci seen biir. retrouvé wuñ fan lañ dëkk dem nañ Palestine yàlla sant leen ñu dugg xeex fekk fa ay géant ñu lànk yàlla leen sujjóot leen ñu lànk gis nga ko ñu dem continuer waat tas ci àddina bi. kon ñoom li leen dal ñoo ko teg seen bopp. mais bien ci la parce que euh, yaakaar naa mi ngi tàmbalee ci bi yonent yàlla demee di déyante boromam 40 jours yi mu fa am ñoom ci lañ topp Moussa Samiri yu waaw ah, mais bien sûr ah. isxaala Moussa li xaw mi xaw mi mhm. xam nga moom bi mu waxee moom yonent yàlla moom moom Moussa Samirin mhm. moom Moussa Samin bi mu ñëwee defar defar bi mu ñëwee defar euh, xërëm bi lañ jële woon ca lañ jële woon ca Firawn ca Firawn ci wurus yi moom la ñoo def ko benn nag bi ñu defaree nag ba yeggal. moom def ci benn pouvoir. waaw kay dafa tibb dafa tibb fi Jibril jaar mu gis ko muy raf suuf si. parce que yow bu fekk yow ministère bu fekkee yaa ngi hmm. sax ma Madiama doon na ko nekk professeur doon na ko wax ci euh, leçon yi ñu jàll. effectivement mooy euh, pouvoir bi mu amoon ba sant ba sotti ko ci nag woowule mu am ruux mel ni kuy dund. exactement bu fekkee yaa ngi toppaat. Euh, wax nga dëgg loolu jaaroon nañ ci jaar nañ ci. ca la leen yàlla banniree nag ñu ànd ak Moussa Samirine. Moussa Samirin dajjal la woon ab dajjal la Zajjaar ma la wax tamit ci Souleymane ab dajjal la woon dajjal yi toujours ñu ngi mas di ñëw mhm. Moussa Samirin kenn rayu ko ba ñuy rey waa bànn Israël ña doon jaamu xërëm ba moom kenn moo bi moo def lépp te pourtant kenn ah, a laaj euh, laaj parce que dajjal ko rey seytaane la yoon si yàlla Moussa daf ko woo bu mu ñëw mu waxtaan ak moom gentiment famaa xat bu ko yaa saamiru mu ne ko non basatu bi maa lim suy bihi fa xabatu xabdatin min asir rasulihi fa nabastuha wa kazalika sawalat li nafsihi maa tey loolu la ma sàmbakan xiital ma def ko ah ñu ko non gis naa lu gisul kan a gis loolu fi jibril jaar lu dul malaaka seytaane wala ko xam dara wala <laughs> moo tax a gis moo tax mu ne ko gis naa lu ñu gisul ñoom maanaam ñoom mënuñu ko gis mhm. li Moussa Saamil gis ñoom mënuñu ko gis moo tax ab saay saay day am xam-xam de ah. yonent yàlla Moussa xam lu mu def da koy móolu fasab demal dina dikkal bis boo xam ne en taqomu laa mi saasa da nga naan bu ma kenn laal maanaam du koy móol di ko ñaanal alkande mais munul ci moom dara d'accord Moussa Samiri romb ko foo ngi faa ngi dem koor quoi bànni Israël la bokkoon ci benn giir bu ñuy jaamu nag mhm. donc ñoom noonu lañ continuer ci kaw suuf ba ci guerre mondiale bi ñëw bi ñu ñëwee nag ba si millénaire bi mhm. guerre mondiale bi am Hitler ni fokk dafay rey waa bànni Israël ba ñu jeex ci kaw suuf si parce que nee na de tant que israéliens ñi ngi nekk ci kaw suuf suuf si du jag moom Hitler loolu gëm. dafa leen bëggoon jeexal. dafa leen bëggoon jeexal kenn xamul nag lan moo tax barke benn waaye nee ma waa Isra Hitler est nekkul ni yàllaa ko yabaloon ma ne ko j'en sais waaye yàlla dana jëlub saay-saay fénk ko ci kaw yeneen i saay-saay. dëgg la nee na bu ma dul def loolu nee kon seen jàkka yeeg seen église yeeg dana mujj màbb. ko màbb. waaw loolu doole yàlla jël beneen saay-saay bu am doole kaw mhm. ma ne ko nag xaw ma nag ba xam Hitler lu mu doon waaye xam naa ne moom mission boobu li mu nekk ci xol bi mu attan ko di leen dugal ci ay chambre à gaz par milliers lay massacré comme ah. kuy rey ay bëy allahu akbar mu ne te tànk que israélien ñu ngi ci kaw suuf suuf si du jàkk loolu la wax du baax mukk kon moom li mu bëggoon mooy jeexal leen ci jeexal leen tàkk ci kaw suuf moom dafa jàpp ni foog ñu jeexal leen tàkk ci kaw suuf pour àddina bi baax mooy loolu la gëm hmm. ci lañ commencé nag israéliens yi daw ñi nekkoon Allemagne génn daw fu ñu xam jëm fu ñu mën a rëcc rëcc lañ ca massacré ñu massacré ñu dispersé wu partout dans le monde. tasaaroo tasaaroo bi guerre mondiale bi jeexee ci la Ben Gurion boobu mi ngi nekkoon aux États-Unis fa la doon nëbbatu fa mais après mu dem approché les anglais parce que boobu l'empire britannique boobu ñoo contrôlé woon Palestine y avait les militaires euh, anglais en Palestine suuf Palestine boobu ñoo fa nekkoon. Mhm. mais comme boobu ñoom de fekk ne yàgg nañu ji ut suuf bu ñu dëkk. Mhm. yi ngi naan ñun fan la war a mën a dëkk parce que dañoo tas si àdduna bi dëkkuñu fenn Theodore Herzl Theodore Herzl moo nekkoon dirigeant wu euh, les les conseils moom dafa bëggoon ñu créer benn état juif en Argentine. Mhm. Argentine li ñu ko bëggoon def. Mhm. ji Israël fa la waroon nekk fa la ñu bëggoon yóbbu Israël. d'accord sottiwul ñu essayé Ouganda en Afrique. sottiwul ñu ñu est-ce que duñ ko indi en Ouganda mais Théodore réussirul ñaar yooyu yëpp mais nag Ben Gourion. moo ko réussir à travers les anglais parce que ci anglais la ñu ni leen il faut que ñu jox ñu benn parti ci Palestine ñun ñu am ñu am suuf ñu am état juif xam ne lii ñoo ko moom ñu xam ne fii ñoo ko moom anglais yi dem ci euh, dem Nations Unies Nations Unies dajaloo ñu yóbbu fa cas bi coow ba ñu diviser Palestine en trois parties mhm. en trois en 1947 la ñu séddalee Israël en Palestine en trois parties. trois te li ngay gis ci caay-caay ku séddale gi mooy dagg nañu Palestine ñetti cër bii mooy Palestine bii mooy Israël bii nag moom mi ngi fi ba ci kanam on verra maanaam Jérusalem. kenn moomu ko kenn moomu ko. Ah, te loolu foofu la ñuy xëccoo yaakaar naa. te Jérusalem ci boppam boo gisee Jérusalem nekk source de conflit loolu gën a tax parce que Jérusalem leeraluñ ko ci dossier yi nii ci Palestine la bokk wala ci Israël la bokk. kon nag kon eh, defe naa kon su ma déggee li nga bëgg a wax alaaji mooy eh, Palestine deful amul tort Israël yi amuñu tort mais ñi séddale ñoo ñoo def ñoo def tort. parce que ñiy di fal ay Israël ñi doon diriger le monde ñoom ils tous partie de la famille maçonnique c'est tous des francs-maçons te maçon Israël mooy sa kilifa. c'est ça il faut nga xam ne boobaa Israël mënoo leen a dëng. parce que kilifay Israël ñooy kilifay franc-maçonnerie. parce que comme comme ñoom ñooy àtte. ok comme que euh, li ma ko mën a wax mooy ki tooñ boobu mooy àtte. ndax ñoom ñooy seen sëriñ yéen a yor pouvoir bi temporel mais ñoom ñooy yor pouvoir spirituel. ok ñoom ñoo yor ay milliards aussi. donc ñoom bu ñu nee politicien bi dañoo bëgg lii lañ bëgg dañ cay taxaw. Mhm. mais benn Gourion mi ngi déclaré indépendance état juif en 1948 mais automatiquement. mu déclarer publiquement que ni objectif sioniste yi ce n'est pas euh, Israël mais c'est tout la Palestine Palestine yëpp ñoo ko moom gis nga <laughs> lii nag bi mu déclaré loolu la créé benn conflit bu tar foofu ci zone boobu ci entre Palestine ak Israël commencé seen xeex bi mais Europe gépp les États-Unis l'Allemagne l'Angleterre la France pays gépp Europe gépp soutenir Israël boobu Israël faisait même pas cinq millions de personnes euh, quatre millions de personnes est-ce que matoon nañu état d'Israël à cette époque en tout ma ñaata la ñu mais à cette époque bari wuñu woon parce que léegi neuf millions lañ mhm. donc il représente très peu de gens mais terewul ñu yor benn puissance militaire bu incroyable am arme yu puissante am arme yu lourd ba pare ñu soutenir leen ci wàllu arme ci wàllu ngàndaay mais ci wàllu technologie ci wàllu xam-xam lu ngeen di xeex Amérique ak puissance yooyu yëpp moo tax puissance ay gëléem lañu yu lonk ci seen bakkan yi buum di watat di xëcc Israël di leen xëcc ñuy watat comme gone gu ndaw gu tàkk ci bakkanu gëléem buum di xëcc muy wom muy topp ko Amérique ak Europe gépp noonu lañ mel ci Israël mooy mooy yilif ñëpp daal moo leen yilif spirituellement yilifu leen eh, ci wàllu nguur d'accord donc ban Israël noonu la ñu mel yàlla moo leen favoriser yàlla bi muy wax ni man yàlla maa yëkkati njabootu ko aadama ak gu nuux ak gu ibrahim xam nga gum ci teg gum ci teg ak imran pourquoi yàlla indi imran inna allah astafa nu aadama wa nuuxan wa ali ibrahim wa ali imrana ala al alamin mais pourquoi yàlla indi imran indiwul beneen yonent vingt cinq Imran bokk yoon ci Imran. lu lu waaw xam nga Imran maamu juif yi la Imran euh, boole ko ci bokkul ci yore du mën a du yonent quoi parce que xëy na 313 prophètes yi wala 24000 prophètes mën na ci bokk. Mhm. waaye 25 prophètes yi nga xam ne ñoom la ñuy reconnaître alxuraan xam leen ñu gën a ñu gën a kii ñekk ñi ñuy tànn. moom boo moo génn ci bokk Imran mhm. waaye nag Imran kilifa la mag la bàyyi la maam la ci waa Bani Israël. ndax moom mooy bàyyi moom mooy bàyyi Mariam. xam nga faaxut góor gu ñuy wax faaxut. moo yoroon caabi Jérusalem ci jamono boobu moo daan garder Jérusalem yàlla def amul woon doom mu ñaan yàlla man de yàlla yàlla nag ma may doom soo ma mayee doom dama koy jox Jérusalem maanaam doom yi dañuy féetewoo Jérusalem rek. di ko liggéeyal yàlla may ko mu am ñaari doom yu jigéen mu xaw a ñaxtu ah doom yu jigéen parce que boobu góor la def ci bopp bi. muy ñaari doom ku ñuy wax anatu bintu faaxut. ak Isa bintu Faaxut waxuma Isa Isa. Isa waaw kay Isa bintu Faaxut ak Anatu bintu Faaxut mu jël ñaari doomam yu jigéen yooyu may Isa bintu Faaxut Zakaria mhm. may Anatu bintu Faaxut mu may ko Imran Imran am ca Mariam ah. Mariam jur Isa ibnu Mariam kon da gis ni moom euh, Imran mhm. mooy maamu ci lu bare bokk. en tout cas kilifa gu mag la ci bànni Israël. parce que ñaar ñi mu la tuddal. inna laa astafa nuuhan wa aadama. astafurlah inna laa astafa aadama. wa nuuh wa mm-hmm. ali ibrahim mm-hmm. wa ali imrana li tax mu indi ñaar ñooñu. wa ali ibrahim mooy ñuy diriger àddina ci diine ba àddina tukki. maanaam njabootu yonent yàlla ibrahim ñooy wàll yi. Mm-hmm. ñooy yonent yi ñooy nitu yàlla yi. ñooy xut bu zamaan yi ñi ngay gis ñëpp ñu nekk ay nit yu am cër ca yàlla yu kawe kawe ci njabootuk yoon si yàlla Ibrahima lañ jógee waaye ñi nga gis ñëpp ñu dirigé àddina bi ci wàllu euh, économie nekk ay président nekk ay gouverneur nekk ay Richard quatre-vingt ñoom ñëpp ñi ngi cosaanoo ko ci topp topp ko toppoon ko di nga gis ñi ci deretam wala ci meenam am na ci yoon euh, Imran ba nga cosaanoo ci laal na ci Imran waaw moo tax du am yonent moo tax moo bokkul ci ku leen parce que mbiru àdduna la dirigé moo yilif yonte imran ku baax la woon góor gu baax a baax a baax moom loolu moom euh, ki nga xamante ni si mooy al waaye ñi nga xam ne ñoo diriger àddina ci wàllu koom-koom mhm. ci wàllu pouvoir ci wàllu kii moo tax la reine d'Angleterre dafay wax ni moom descendant David la parce que Daouda mooy maamu Imran mhm. donc même famille bi la Imran Daouda ci Souleymane wàcc ba ci Imran mhm. donc ñooñu ñoo mës di diri diriger àddina ci wàllu koom-koom moo tax la reine d'Angleterre dafa doon wax ni moom descendant Daoud la mais am na ñuy wax ni reine d'Angleterre descendant yoon ci Seydina Mouhamed la. Mm-hmm. am na ñuy wax ni sët la ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam la reine d'Angleterre moo tax mu respecté woon musulman yi du trop trop trop trop ba sax am na ñuy wax ni sax. Eh, mujj na nekk jullit di nga ko gis ni fu ñuy jàngee alxuraan muy jooy. Mm-hmm. gis nañ ko moom la reine d'Angleterre yàlla rek a xam lu mu doon mais nit moom li nga gis nii ci kaw rek ngay mën a xam mais mënoo xam la nekk ci biir xol ba dëgg la donc ñooñu ñoo mas a gouverner àddina muy waa bànni Israël malgré seen minorité bu ndaw loolu leen yàlla defal noonu nag moo indi guerre bii tey guerre bi nag li ko soutenir li ci laxasu ci ginnaaw yëpp c'est tout ça pourquoi Israël léegi mën a am capacité boobu parce que contrôle mystique contrôle boobu nga xam ne contrôle ni ko ñi nga xam ne ñooy gouverner monde à travers la franc-maçonnerie. d'accord intérêt boobu la ñuy wër te intérêt Israël daf ne dafa bëgg récupérer la grande Israël. Mhm. la grande Israël mooy lan. Mhm. la grande Israël ñoom dañ ni Palestine gépp la Jordanie ci la bokk Syrie ci la bokk Liban ci la bokk. Mhm. Irak ci la bokk Égypte ci la bokk Màkka ci la bokk Arabie Saoudite mais ñoom kon bu ñu leen seetaanee bomb <laughs> kon baa dina baax. c'est kon bu ñu leen seetaanee est-ce que est-ce que kon dina baax parce que ñoom seen bët kon teguñu ko rek ci euh, ci ci bande de Gaza kon ñoom seen bët teguñu ko ci ba ci euh, ardul Hijaaz. wallaahi loolu mooy loolu loolu la parce que ñoom dañu jàpp te loolu bu boobaa mooy tax ñu mën a contrôler le monde mhm. islamique. mais le monde religieux mooy parce que tey jii doole yi nga xam ne ñooy baasu cosaanu diine islam. dans le monde entier et zone bi boo ko waxee boo ko ci dindee l'islam jeex na. waaw ah, dëgg la. xam nga l'islam islam jeex <laughs> dëgg la. donc Israël bu ñu demee ba contrôler zone boobu ba moom ko loolu lépp bokk ci Israël mais l'islam sëñ bi dañ koy fay définitivement ci diir bu gàtt dañ koy supprimer. waaw ah, waaw. dañ koy supprimer l'islam jeex na jàkka yu toj leen ko transformer leen ko ay boîte wala ay bar mu jeex. ñu ni ku fi julleeti nangam dal la ku woor interdit dañ ko fi julli ay mosquée noddu jeex na fi alxuraan bi dañ koy dindi sànni samp yeneen téere yu bees modifier seen alxuraan bi bu boobaa loolu la ñuy jéem Israël bis bu contrôlé woon monde bi danaan alxuraan dañ koy supprimer wala bu ñu ko supprimer da koy modifier danaan dañ koy bindaat. parce que parce que ñoom euh, bu dee wàllu franc-maçonnerie bi yaakaar naa dañ ko jàppee ñoom diine lañ ko jàppee. waaye bay ñoom diine lañ ko jàppee kon bu boobaa dañ ñu koy imposer par force te am doole bi. effectivement. xam nga euh, maanaam diine iblis la diine seytaane la franc-maçonnerie diine seytaane la mhm. diine iblis la objectif am mooy xeex jële fi diine léegi pour nga mën jële fi diine fokk da ngay yor pouvoir yi yëpp da nga koy dajale pour nga mën a xeex diine da ngay yor pouvoiru alal mhm. économie mondiale nga téye ko da yor pouvoir temporel maanaam président ñuy gouverner di ñuy nga yor ko mhm. da fexe ba yor justice nga yor ko. Mhm. da ngay fexe ba yor pouvoir militaire mooy nga ëpp ñëpp doole mën leen a écraser ci ñetti fat mhm. pouvoir yi boo ko dajalee ñëpp ko bu boobaa fi nga bëgg a contrôler àddina jëmee fa di ko mën. Ah, waaw ku la neex mu xiif ku la neex mu mar ku la neex dëkk bu la neex taal heure bu la neexee nga arrêté ko. Mhm. contrôle décision yi yéen koy jël loi yi yéen a koy bind. waaw loolu de ku ko ko de moom loo loo bëgg a tas mën nga ko tas. jeex na bu ñu xëyee ni bis ñi ko tey daal ak ngóor jigéen léegi daggan na ay ca loi bi d'accord na ko par force ñun liñ ci man bu fi amee di xeex ci mbedd yi ak sànni xeer. voilà jooy ba jooy deret jooy ba jooy deret doo ci mën dara. jooy ba jooy deret rek doo ci mën dara. <laughs> doo dara waaw taxaw daal di sànni xeer. Mhm. foo gisee góor jigéen toj bopp bi lii rek amat. yow lii rek nga man mais mënoo dem dindi loi yi mënoo ci dara. dëgg la parce que ña koy décider ñoom la. dëgg la liñ bëgg mooy am. Mhm. booy dégg ñu naan dañuy voté loi bi c'est déjà programmé c'est dañu koy imposer ñun réew yi nga xam ne amuñu doole dañuy dikk nit ñi da di voté góor jigéen bu ngeen lànkee góor jigéen ñu ne ah ñu ne ah baax na. ñu takk suñu biir. takk seen biir ngeen commencé lot sa gouvernement sonn xoqat ñu ne ko ah boo nangoo signé loi bi rek mille milliare yi ñu taxaw di la xaar ñu investir ko suba suba ñu indi leen. léegi boo gëmul yàlla nag da nga koy da nga koy ah mais sa réew sa population duñ la comprendre dañ lay attaqué. liggéeyoo réew mi dañoo xiif dañoo sonn liggéeyal loolu lañ lay wax yow nga gis ni nekkate yow alal ji yoroo ko ñii ñoo la koy jox te ñii dafa am lu ñu lay imposé loo xam ko est-ce que mën nga leen expliquer ni leen man kat awma xaalis waa bandi Israël ñoo am 1000 milliards pare pour jox ma ko waaye dañuy foo ma signé góor jigéen population dañu mën a comprendre loolu ah, <laughs> kon alaaji ñu comprendre lool. alaaji yëf yi ay sew sew la de. wallaahi. waaw ah, ay sew sew la de léegi xam naa ko dañuy dañuy tourné waat nag ci. Euh, yaa ngi ci li waral xeex bi yàgg na euh, ñuy xëccoo benn parti boo xam ni euh, ñi ko àtte dañu àtte ni dañu ko xaaj ñetti xaaj lii Israël yi ñoo ko moom lii Palestine yi ñoo ko moom hmm. bii nag kenn moomu ko muy fi nga xam ni fa la fa la baytul maqdis nekk hmm. te baytul maqdis yaakaar naa ni symbole la ci diine islam hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu déparé ci rañaanam gu mag googule bi mu déparé Makkatal Mukarram foofu la dem subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al hmm. masjidil xaraami ila al masjidil aqsa hmm. waaye déglu li ci yàlla wax hmm. allazi barak naa xawlahu waaw effectivement allazi barak naa xawlahu moo tax effectivement kon yaakaar naa ni waaw euh, loolu tamit euh, war nañ ci def taxaw seetlu ñun ñun jullit ñi ndax alladi barak naa xawlahu kon yàlla ma barkeel la wër ardul ijaas boobu yëpp la ok suuf si nga xam ni yàlla barkeel na ko du rek Jérusalem mais li ko wër lépp ah, mooy Syrie Jordanie dëkk yooyu yëpp yàlla daf ci def barke. xam nga yoon yonent yàlla Souleymane bi mu tabaxee Jérusalem ba pare dafa génn taxaw ci biti mbooloo mi wër ko mu tàllal ay loxoom ci kaw. ni yàlla maa ngi lay ñaan jàkka ji ku fi duggati julli ñaari ràkk yow yàlla na ko nangu te damaa bëgg bu fekkee ni nangu ko sama ñaan nga wan ma ko fii mu jekki-jekki benn leer dikk jóge ci asamaan. ñëw wër leen ñoom ñëpp ñu taxaw mbooloo bi leer gi wër leen ba kenn gisatul sa moroom ab diir leer gi ni far dem yonent yàlla Suleymaan ne alhamdulilahi rabbil alamin moo tax juifs yi xam nañ la mur des lamentations foofu boo fa demee loo fa ñaan yàlla def ko foofu nga gis juifs yi tax fa seen loxo yi naan nii uh-huh. mur des lamentations boo fa demee loo fa ñaan yàlla da koy nangu est-ce que gënul gaaw fépp sax est-ce que yow xam nga tubaab yi gëmuñu ay taxaw ci ay miir di wéeru ko di ñaan. déedéet déedéet waaw ah, boo gisee juif yi ñëw di def loolu nga yaakaar ne ndox dañoo dof moo tax ñu koy def. kon am na lu ca am na lu ca laxasu. c'est kon am na lu ca laxasu pourtant léeg-léeg gis gars yi di ko di ko def nga nga leen yedd. ah xamuñu. xamuñu miir boobu mooy ancien palais Souleymane bi li ci ba fa daanu la ca des. la ca des. moo nekk moo nekk ci palais ba juddee tabaxul. moo nekk noonu moo nekk noonu. moo tax ñu koy mur des lamentations wala yazidanna kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tuxyaanan wa kufran mhm. wal xëy naa baadahumul adawata wala baxdaa kullu maa xadu naaran lil xarbi atfaa allahu mhm. léegi nag ñoom dañoo dikk gis ñu amatuñu contrôle àdduna ñu ne nañ ko taal àdduna takk ñoom waa bani Israël xam nga guerre bi ngay gis ni tey mhm. Israël ni mu songee Palestine tey bombardement yu metti yi ñaar la ci boole pour déclencher guerre mondial xanaa xamul ni du Russie Russie guerre rek la bañ. ah bon ko mais dañ ko ko forcer parce que dañoo gis ni ñi ngi daanu xam nga lu waral loolu. Mhm. lu waral guerre bi ngay gis Russie Israël la. Mhm. printemps arabe bi nga fi doon gis Israël la. Israël moo xëy benn bis woo leen mooy surgaam yooyu yëpp ci àddina bi américain ak français ak Europe gépp ni leen nag damaa bëgg réew yi ma wër yëpp président ya fa nekk dañ maa bañ man Israël. dama bëgg ngeen jëlee leen fi président yii diw ak diw ak diw samp fa ñoo xam ne bëgg nañu man Israël ci la ñu créé printemps arabe boobu. créé soulève ay soulèvement ci dëkk yëpp créé fi ay rébellion ñu xeex Iran xeex ci lañu ñu reyee Kadhafi ci la ñu reyee euh, euh, Libye xad euh, kii kon Saddam Hussein. ci lañu ñu reyee ki mën di président bu bu xoolee bu président Égypte bi gagné ay élection clairement yu xëy ni ko càppit dindi ko fa rey ko jël teg fa ñeneen kenn naangul ci àddina bi ñu def partout dëkk yi nga gis yëpp ñu échoué ñu échoué Syrie pourquoi ñu échoué Syrie parce que Russie moo ñëw soutenir Barash euh, Bachar al-Assad mhm. parce que Russie moo ñëw jàppale ko mhm. ñu xeex ne luñ ko dara xam nga rébellion bu tar lañ fa créé mhm. Bachar résisté ndax armée russe ñoo ñëw xeexal ko taxaw ko ñu soog ni kon suñu problème du ñii suñu vrai problème Russie la kon fekk ngeen fexe ñu diviser Russie tas ko néewal ko doole. d'accord foog ñu isoler la Russie isoler. ndax ñu mën a am. ndax ñu mën a am contrôle bi ñu bëgg sur le reste du monde bu ñu demee ba contrôler monde bi yëpp nag ñu soog a nag ci Russie réussi nag xam na ko ñu jël nag léegi dëkkandoom boobu muy ki muy xeexal nii. wala Palestine la. non Russie. jël ko fekk ko ci kawam mu commencé réclamer ay territoire di def ay affaire nekk def yi muy def yëpp crime yi muy def yëpp pour provoquer la Russie ci la euh, Russie ñëw imposé wu teg li mu teg. Mm-hmm. indi pouvoir militaire am. aha ñu jàpp ni foofu lañ mën a jaar pour néewal ko doole faf mu échec Russie boo tax boo dégloo da ngay dégg doo dégg seen président bi di la wax ni la. damay xeex ak l'OTAN wala damay xeex ak Europe wala damay xeex ak Amérique. Mhm. daf ne dañuy xeex avec le nouvel ordre mondial. d'accord moom loolu lay loolu lay déclaré. moom loolu lay déclaré c'est une guerre contre le nouvel ordre mondial en réalité guerre bi muy xeex xeex bu loolu la. Mhm. en réalité guerre bi du guerre Europe du Amérique nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial nag mooy ñoo ñëpp ci liñ biir lañ bokk. ñoo ñoo amul Russie parce que Russie dafay représenter menace daf leen di contrer moom tam mu dem xam nga am ay alliés ànd ak Iran Iran puissance militaire la ñu gis ni Russie li ñu doon foog lépp pour daaneel ko au contraire daf koy yëkkati Russie mi ngi ciy génn te daf leen di gagné économiquement daf leen di gagné. Mhm. mooy guerre bi ñu gën a ragal. du guerre militaire bi la gën a ragal mais guerre économique bi la gën a ragal. te Russie daf leen mi ngi jël yoonu gagné leen. ñu xam ne bu leen gaañee dañuy nasax fi la ñuy ba faw Afrique da di bàyyi ñu ne ko lii bu naree am nañ ko taal lépp jeex ñu reprendre at ci base yu bees moo tax yàlla ni à chaque fois kullamaa awqadu naaran lil ardi atfaahaa allahu allahu akbar loolu yàllaa ko wax ni sëñ wallaahi chaque jour ñoom waa bànni Israël yi ngi jéem a taal safara man yàlla ma fayaat ko da ngeen a fàtte wax boobu wallaahi allahu akbar moo tax ñu attaqué Palestine di ko bombardé bombardement yu metti ci instant bi parce que dañu am ñaar mooy ci lañ boo leen permettre mën a provoquer guerre mondiale leen tal la ñu jàpp kenn dootu leen taal fi nuyu bi kenn taal lu leen neex mën nañ ko def Palestine profité hmm. moo tax ñu def massacre yu ñaaw génocide yu ñaaw yi nga xam ñu koy def ci biir Palestine ñun reste du monde lan lañ ci toog di jooy hmm. di jooy hmm. ak di jàngi jàng ay kaamil wallaay loolu rek lañ ci mën jooy ak jàng kaamil jàng ay kaamil naqarlu mettitlu te nga ji France bu xëyoon benn bis ñëw bombardé Sénégal de tant que Russie demul ba génn ci guerre bi ba mën a am puissance ñëw taxaw soutenir France bu xëyoon benn si ñëw bombardé Sénégal def un million de morts dara du xem ay wax rek mooy am France nous condamnons fermement la France li mu def c'est pas normal France warul bombarder Sénégal wax rek mooy am wax rek mais dara du am. mais jëf du am. kenn du jëf kan mooy jëf <laughs> mais France mooy Amérique mooy Europe ñoom ñëpp benn mooy ñoom ñëpp c'est le nouvel ordre mondial. Mm-hmm. ñoom ñëpp c'est l'ONU ñoom ñëpp benn famille bi la. il faut que moom beneen puissance bu leen mën a contrer buy tax bu boobaa dootuñu ko ñemee. d'accord mais le tant loolu amul moo tax de tànk que Russie gañewul guerre boobu ñun Afrique ba tey dafay des ñu mën a am liberté bi ñu bëgg bu boobaa dañ lay imposer benn affaire mënoo ko ñëw massacrer la dara lu xew dañoo ñëw taal Libye rey fa président dëkk bu stable bu puissant am doole am ay milliards am pétrole kenn du jënd essence kenn du jënd gasoil dara luñ ko fay. ñu nax leen ba rey ba rey seen ñëw nax leen créer créer fa rébellion s'il te plaît créer fa rébellion dañ mhm. bàyyi xel rébellion du rébellion du ñu ngay gis dafa am ñu nekk derrière ñoo xam ni l'OTAN la mhm. Nations Unies la mhm. ñoo nekk derrière rébellion yi ngay gis yëpp ci àddina bi loolu nañ ko xam mën yoo xëy sa rébellion boobu ñu jox ko puissance militaire bu sa armée amul mu attaque sa réew guerre ak yow daal la daaneel la fa nekkoon rey dëkk ba ñëpp dëgg la ñu créé fa rébellion bi ñu jàppale leen bombardé bombardé ba Libye mokk ñu jàpp Kadhafi rey ko rey bu ñaaw Égypte dañoo ñëw coppet par exemple fa ko génnee ko yóbbu fële exécuté ay centaines de personnes ba ci ko ndar mu teg fa ka leen neex dara xew si Iran si Irak dëkk yëpp dañ leen attaqué bombardé leen def fa ay milliers de morts dara du xew. Mhm. waxtuma ak ñun Sénégal su ndaw si ak ay Mali ki Burkina Faso nga xam ne ay wanag rek lañ. wallaahi mat na man na mat na bàyyi xel. moo tax il faut nit ñi demee comprendre ni lii tax ñu mën a génn ci situation yi nekkul affaire wu euh, maanaam fippu mais dafay tegu ci xel ak xam-xam ak tegu ci ñu xam ni mbir yi il faut suñu dool yu am fenn fuñ ko jaar pour mën ko atteindre mhm. mais tant que loolu amul bu ñu xëyoon benn bis ni ni fipp nañu génn nañ ci nangam maa la waatal ci alxuraan ni la ay ay bomb lañ cee jële xiif mhm. wala ay massacre yu ñaaw yoo fi gis parce que kenn du taxaw di la ci dimbali wax donc la ñuy def bu boobaa yeneen réew bi nañu gën ñu condamnons les attaques au Sénégal ñu condamnons fermement les bombardements de la France ngam danga <laughs> loolu faju dara du faj dara <laughs> mais loolu bis bu nekk mu ngi si àddina bi il faut ñu comprendre loolu ah, faju dara mhm. baarakallahu